am na solo Lamine allez si par rapport ak initiative bi ak itam parce que loo xam ne la sénégalais yu bëri rawatina waa làmb ñu koy lu ama am solo parce que it nag kuy liggéey ba sa heure liggéey jeex soxla ko ne la jaajëf mel ni da ngeen a bëgg wax jaajëf ci wi donte daanu dajul suuf mais hmm. ngeen ku tànn nag di nga am loo bàyyi waaye illustration bi ci tànn tànn bi sax Babacar ba léegi amagul parce que tànn bi tey Babacar moo koy def mm-hmm. Mamadou Diouf moo koy def mm-hmm. Moudou Anta moo koy def keneen ak keneen ak keneen ñoo koy def ñun ba léegi mm-hmm. proposition rek lañ def waaw mais tànn bi ba léegi antoogul parce que boo pour wax ni affaire bi ba léegi gars yi ñu ngi xaar parce que boo gis démb jël naa Modou Lo kër wax nañ ci affaire maire lutteur mhm. mais ba léegi xamul initiative bu mu jógee xamu ko woon xamu ko woon moom affaire maire lutteur boobu noonu may dégg dañ ko joxe ba bari wala joxe guñ ko kañ la ma ne joxe guñ ko de joxe guñ ko de ñun ñoo koy def mhm. mu ne ah waaw ñun ñoo koy def mhm. mais loolu comme ni ko on fi di waxee rek jéem a yokk rek ndax ku yokkul yaa wàññi léegi nag ci loolu la ñuy jéem a sukkandiku rek jéem a def ay innovation def ko nag ci maanute def ko ci maanute mooy yéen ñi nga xamante ne tey yéen a nekk chaque jour sur le terrain ngeen def vote yi wax ki ngeen jàpp ni moom mooy meilleur lutteur su ko defee nag bu fekkee euh, tàngal lañ koy jox parce que amul dara loo xamante ni tey mën nañ ko jox tey ñi nga xamante ni ñoom lañ fa tudd. seen bu fekkee du ñuy lekk la ñoom mën nañ koo utal seen bopp bu fekkee du ñuy sol la mën nañ ko utal seen bopp mm-hmm. mais c'est juste rek pour valoriser leen mm-hmm. pour wax ne yéen a ngi ci. Mhm. gën leen cee nekk. Mhm. ba pare gën a dooleel làmb. Mhm. waaye nag dooleel ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey pour làmb dem ci kanam. waaw yow boo doon tànn meilleur bi koo tànn yow. Modou Lo Modou Lo. yi ba tey. mais jox ko meilleur saison yow mën naa layal. waaw daa mel ni de. yow mën naa layal. Uh-huh. Ama la daan booy ñaala daan ku ci nekk daanantuwu la daf la daan avec la manière. Uh-huh. mën mën na am ñoom waa Modou ak ñi ko bëgg ak ñi koy entraîné xam ko mën nañ bañ am mbetteel mais Modou Lo bii bëri Ama Baldé tey boo xool sénégalais yi ah, ak à 60 pour cent wala à 70 pour cent. Mm-hmm. Ama lañ jàppoon ne mooy daan ba loolu dafa feeñ sax ci stade bi. Mm-hmm. xoolal mobilisation ba fa Ama kese de. Mm-hmm. problème bu nekkul stade ba fa nekk euh, Pikine rek moo mbooloo. parce que booy ñaaw stade bi Pikine la nekk te ëppale ko fa Modou Lo mbooloo. mbooloo waaw. qui espère 30 50 jours. ok bu ku ci nekk mu ñëw daan la avec la manière. Mhm. ba pare di jàngale professionnalisme daf koy jàngale. Mhm. xam nga problème bi du ay nombre de man góobu na ci ay nombre de victoire rek ci dañu war a joxe meilleur lutteur. Mhm. donte am donte am na ci solo Sadio Mané bi ñu koy def meilleur joueur est-ce que moo ëppale ay buts. ëppale mu doon ay buts pourtant moom lañ jox meilleur joueur. Sénégal jëlee coupe bi. Coupe d'Afrique. waaw mhm. loolu foofu rek mën nga fa jaaree layal ni Modou Lo mën na nekk meilleur lutteur. Mhm. daan Boy Niang. Mhm. daan Ama Baldé. ku ci nekk lu mu def dalaa fàqal rek nga daan. déedéet wala daa ñëw laal la nga daan <laughs> wala dalaa liggéey ba nga daan bëri na ak ñoom dafa bëri ñoom ba mu sumee ko sax ñu bëri dañ dalay xaru xaraa xeex bëri për euh, combat ak Ama Baldé am na ñu dem ñibbi kii daf ñu yëpp man maa ngi toog yor sama téléphone di xoole statut yi ñu naan kii mbër la war a jour bi mu sumee démb waxaan nañ ci loolu noonu. Mhm. mu ne moom mentalement loolu daf ko teel a préparé parce que xamoon na yooyu la ciy dégg après. maanaam dégg yi maanaam wax jooju ba mu ñëw su meeku noonu waaw. waaw di di va et vient. waaw takkul ba mu ñëwaatee contre Boy Niang. waaw keroog dinaa saf làmb. sap. moom na làmb moom. sap te pourtant ba mu su meekoo takkul dara. mais dafa saf lamb ci saf ci tous ma saf lamb ci comportement ci limu kanam gi waaw xam nga saf lamb def lamb xep ko fi def ay show te bu arbitre le do def différence loolu dafa am ñari affaire bu ay si gis nga bàyyi ko affaire bu ay signature kese du ay interview kessé lamb ci géew bi la bi la géew bi la njàmbaar fofu lay feñi da nañ soxla nak signature nga ñew wax ay sa combat interview nga xas-xas do waye hmm. lamb ci bir géew la di njàmbaar gi fofu lay feñi parce que lamb day bëgg gis mbeur Modou c'est le meilleur. c'est le meilleur vraiment vraiment mm-hmm. saison bi mom. Mm-hmm. c'est le meilleur. yow ban combat mo le gëna marqué. ci saison Mo boña. combat mo rëbb boña. Niang. Mm-hmm. la motax moo tax mu mu marqué la. technique Feñ na fa tactique feñ. technique ak tactique. waaw Xex nga gis ñu xex ku ci nekk amna ay coup yo xamantani bu doon ben Babacar la dang koy jël xex nañ xex boo xamante bu doon maa ngi Mamadou Diouf la dañuy jël ku ba daan. mais ku ci nekk yaa ngi. mën na ngi sànni mu. ngi gis mu mooy xool waaw. di dugal ak yedd. wallay wax nga dëgg. ku ya ñàkk dal du seenam xam-xam la. coup yi mu Modou Lo sànni booy ñaar sànni na benn coup. mu jaar fi Modou Lo bu ko daloon mën na toog. mën na toog. Mhm. Modou Lo aussi am na bu mu def ni booy ñaar. boobu bu daloon booy ñaar day toog. da nga wax ñaar ñi dàq moytu ci làmb ji. ñaar ñi dàq moytu ci làmb ji mooy Modou Lo ak booy ñaar Hmm? defal micro territoire nga laaj ci li ma wax. parce que dinaa ci laaj léegi grand salle.